na dëggu direct na ci ñi ci wara jot jot ci boudé deux personnes représenté nañ ko dignement président de la république war na ci mën jot. Afrique dañu tollu fo xamante ni il est temps ñu def rupture ça ça va être de façon générale il faut ñëpp yeewu ndoo parce que mënuñu fi nekk rek benn groupe de personnes di dund ci ñeneen ñi ci des quoi ben ben ben gouvernement à chaque fois buñu génné génn ay milliardaires lañuy doon lan mo koy justifier et que lolu du depuis ba fi ba c'est le même système qui continue et il est temps gars yi franchement ñu parce que kenn du xéxal kenn ku ne ya xéxal sa bop et que dafa jot nak, dafa jot nak ñi ñu ñu di saytu di par force la amul négociation amul ko jox sa alal bu ko jaarul fi mu jor da nga par force la. dina répété wu fépp parce que ñëpp maar xam nga la mooy problème yi mooy mënoo dëkk di noot nit ay at yaakaar ne du comprendre bés bu yeewoo rek catastrophe lay jur. te loolu mooy am fépp te day continuer du du dakk loolu Afrique yëpp il est temps njiiti comprendre que ne gënuñu fi dañ ñu jiite rek parce que ndogalu suñu borom la donc ñii ñu jiite. ñii ñu jiite nañu bàyyi xel ne am nañu wàll ci liñ leen dénk ñu delloowaat leen ko mu jeex ku nekk li may wax rek euh, dañu leen fal di leen fay pour ngeen liggéey donc bàyyi leen ci xel delloo cir bi ñu ko moom te loolu mooy kàddu bu mujj mooy bu njëkk. kañ la doon kuy wàllu askan wi kañ la kañ la kañ lay doon kañ lay doon. doon ku ñuy walloo amuñu lu ñu lekk amuñu lu ñu naan buy xiin di ci ndox mi la ñuy fanaan koo gis mu ne tekk njàkkare ko daan sa ngéyeem rongo ñi di gaaw a tox ni sa laan ndoxo courant yëgsegul ci yenn gox yi ba tey étudiants yi dékku sox yi fagay champ ba bataille njàng mi di soox profit grève coow li du tey paj mi téew a dox mag ñi wax ba taay baykat baa ngi jooy sàmmkat bi nappkat bi soxla ku leen geesu wiyooy dafa doy àll baa ngi laaj wàllam bu leen ko gasul